serigne Jili Mbacke di doom ci sëriñ Modou Mamoun Mbacke taawub maam Cheikh Anta Mbacke mi ngi gënee àdduna ci dëkk bii di Darou Salaam ci ant 1942 bi mu gënee àdduna waaye juram sëriñ Modou Mamoun moo ko duppee sëriñ Abdoul Khadir Mbacke imam bi mu matee dal jàng mu ko ci loxol sëriñ Assane Diané sëriñ Assane Diané nekkoon na jàngalekat fii ci Daaru Salaam lu ëpp ci njabootu sëriñ Modou Mamoun gi moo doon jàngal xaritu sëriñ Abdourahmane Mbacké ak sëriñ Mame Mor Sikaab ñoom ñëpp doonoon ay magam sëriñ Jili Mbacké ginnaaw bu mu noppee gis waajuram ci la le 26 septembre 1969 ci la takk ak laxasaayam ànd ak magam ji ñuy wax sëriñ Modou Rokhaya mbake mi jëkk a wuutu sëriñ Modou Mamoun ci toogaayam bi sëriñ Jili nekkoon ak moom ba mujjoon sax mu doon doonoon ku yaatu lool te bëgg aw nit xam àdduna lool te silvisé ginnaaw bi la tàmbalee yaatal ay jéegoom dëkk ca dëkk bee nga xam ne moo di mbuur sëriñ Abdul Xaadir mooy ki ko delloosi waat fii ci Sénégal ginaaw bu mu ñëwaatee Sénégal nag la daan tàmbali di dem ak ñëw di dem ak a ñëw ba ci le huit septième mois mille neuf cent deux mille quatorze le huit septième mois deux mille quatorze ci la euh, magam ju baax ja di Serigne As Guédé Mbacké mi nga xam ne moo nekkoon ñetteelu xalifa Serigne Modou Mamoun ginnaaw bu ko Serigne Modou Rokhaya doone Serigne Amidoun doon ko Serigne As Guédé doon ko ci euh, ginnaaw bi nag la Serigne Jili nekk ñeenteelu xalifa Serigne Modou Mamoun jóge France ñëw fii njabootuk Serigne Modou Mamoun gépp maa si jox ko seen bopp mu jiite leen jiite na liggéey bi def fi nag ay réalisation yu am solo xam ngeen ne bokk na ci li nga xamante ne bii mooy yeesalaat kërug daaru salaam gi ci loxoom la amee waaye yeesalaat itam jumaa yi Serigne Touba bi nga xam ne moo di daaru salaam ci këram la amee waaye itam fii ñuy wax daaray kaamil ci loxoom la yeesewaat waaye itam nag eh, Serigne Jili nekk na koo xam ne jiite na addiyee daaru salaam ji ba ci atum eh, deux mille vingt et muy janvier bi deux mille vingt et un addiyee ji daje na ci loxoom mu yëkkatewaat ko ci rek ci loxol rakkam di Serigne Abo Mbakke wér di dal ko mu ne ko maa ngi dem dakaar ci ñëw ci la yàlla dogal mu wàcc ab liggéey e, e, tey jii e, ci talaata ji fii ci ca hôpital principal ñu war ko denc Daaru Salaam ginnaaw bu nu julee tàkkusaan ba noppi Serigne Jili mi ngi gane àdduna le vingt sept janvier mille neuf cent deux mille vingt et un ci la wàcc ab liggéey mi ngi doon xalifa Serigne Modou Mamoun le huit septième mois deux mille quatorze mi ngi wàcc ab liggéey le vingt sept janvier euh, deux mille vingt et un mi ngi gënee àdduna ci mille cent quarante et kooku moo di Serigne Djili Mbacke yal na yàlla yokk ay leeram te tar